boo xam ne bii fàttali na ma lu bare xamalaale na ma sax lu ma umpale woon loolu nag mi ngi ko def ginnaaw vidéo bi nga xam ne bii moom lañu mujjoon a def di ci wax naan réew mi naguñu mu delloo si histoireu senegaal ci juróom benn fukki at yi nga xam ni ñoo weesu tàmbalee ci Senghor jaar ci ab Abdou juuf ba agsi ci Ablaye Wade ba kii fi nekk tey Senghor ne ci réew mi jamono bi muy jot ci tubaab yi réew mi réewum koom daanaka la jotoon ndax Afrique occidentale kenn tanewuñu fi woon ci wàllu koom ak ci wàllu xam-xam ak ci wàllu jumtuwaay loolu nag pour nga mën ko xam sax dangay ngay judd fu mel na Thiès gis foofu ñu daan wax régie des chemins de fer nga juddoo fa daan dugg foofu di xool infrastructure jumtuwaay yi nga xam ni moom la fi tubaab yi bàyyi woon te loolu daanaka gaar boo taxaw tàmbalee ndakaaru ba ba ngay àgg Bamako da nga fa fekk lu nu mel bokkul nag ak yeneen usine yu fi tubaab yi bàyyi ak yeneen ak yeneen lépp la ci ëpp Senghor naax saayal na ko nekk fi di foy foo ka wecc fecc tëgg loolu moo doon programme am poème cinéma ndax moom moomu day bari na alal joo xam ne dugg na ci réew mi te ci turu askan wi la ko leb fa waroon a dugg ndax dugg na fa loolu yaakaar naa ni jaadu woon na ci su fekkoon ne Sénégal citoyen yépp dañuy bokk benn plainte déposé ko dañ koy déposé contre Senghor ndax tooñ yamuñu tooñ du ku ku ma jàpp ne man mérité woon na benn hommage ndax ku te ne cim réew yilif ko lu at yu mu ko yilif ba noppi defuloo fi waxoo fi lenn loo xam ne lii lu ñu mën a fàttaliku ci yow xanaa ay mbedd yuñ la tudde ay stade yuñ la tudde mérité wu ko woon ku xam sengoor dëgg-dëgg xam histoire li may wax nag je l'assume pleinement ba mu fi jógeet bàyyi fi ku xaw a mel na moom koo xam ni kii lu ne nag dugg na ca ci jamono jooju réew mi àgguñu fii ñu àgg ci population buy bari bay bari quatre millions cinq millions d'habitants ca jamonoom ba nim fi jógee muy population bu yomb lijjanti xëy na ak la mu yoroon ci moyen moom it daanaka tous la fi deful tous buñ doon plainte dañ koy boolewaale ci plainte ba Ablaye Wade di ñëw daanaka soriwul ak ñooñu moom nag moo tombeek xaalis banaal ñuy tudd ay milliards ci jamonoy Abdou Diouf xëy na nag médias yi demeewul woon noonu waaye ci jamonoy Ablaye Wade ngay dégg ay milliards ay milliards ay milliards misaalu Ablaye nag tabax na am na lu mu def waaye buñ ko toppoon ñetti nitam yooyu rek fii muy waa ji lëng dabar ji ŋàbb doom ji loolu buñ ko ci toppoon rek àddina tukki ci moom buñ ko toppoon li mu saax saaxee ci suuf ci Sénégal àddinaam tukki loolu nag ay firnde yu wér ñoo nekk ci réew mi yu ñit yor xam ko misaalu Ablaye wàdd ci réalisation laa leen di wax nu muy demee mës naa ko fi joxe nga xëy suba jox sa soxna ñaar fukki junni ne ko damay am ay gan gan yu riis nag laay am ay ca demal nga duggi marché ñëw defaral leen añ mu dem ci supermarché ba jënd fa soow ma fa ëpp valeur jënd fa potu meew ya gën a riche jënd dugub dal di daw gaaw defar laax def ca bër def ca raisin ak a togg lu baax ak a togg lu am valeur ak a togg lu waaye loolu lépp buñ ko doon wàññi xëy na buy cher bay cher du passé juróom benn junni li ci toppit mooy li ñu ko jox ci xaalis méngoowul ak plat bu mel noonu ci gan ndax gan lañ ca xamoon mooy nga dem wutib gàtt rendi ko wala nga jënd ay ginaar wala nga jënd ndawal togg ko togg goo xam ne gii ku ko tiim xam ne kii teral na gan gi loolu mooy suñu mbir ak Ablaye Wade yéem ay mbiram nag réalisation yomb na ndax nag lu bon bon moo tane ñu fi jiitu woon waaye moom itam buñ ko màndaxee ak li ñu ko doon jox ci ay moyen financiers moo ko waxal boppam nag nettaliwuma ko fii la toog ci Tiwaawan kanamu sëñ Mansour rahmahullah ni bu ma kenn lijjantil xaalis ay projet lay lijjanti yu ma def li ma yor te ku ne xam na ne ab lay li jaar ci loxoom ci ay milliards kenn xamul nu mu toll loola ba mu jógee gis ngeen ko réew mi gën a ndóol la def gën a deltu ginnaaw baadoolo yi gën a sonn parce que milliards ya da koo saax saaxee moom itam ñaata milliardaire la Ablaye Wade créé à commencer par le président de la république actuelle six milliards fonds Taïwan yooyu ngeen doon dégg moom mii tontoogu ci lu leer nee na Ablaye Wade ko ko may kon Ablaye Wade tooñ yoon mi ñu tooñ mi ngi noonu ne fang ñépp di ko gis ñii nag bañ fi jugee ba léegi ñoom bañ fi ñëwee ba léegi li fi xew xam ngeen ko sa jabar am xaalis say beau say mbokki jabar am xaalis say doom ay dooma mi ngi fi dégg ngeen leen jàng nañ ba pare déggagu leen lu dul ña nga ne mokk ci ay roq ak ci ay milliards lii nag mooy réew mi lii mooy réew mi ñaata nit yu bokk ci moom lañu tudd yu yoo xam ni la wax ni moom lañu ñu luubal ci alalu réew mi déggagu leen kenn ku ŋaang jëm ca wala ñu wax ku yëy yàbbi ca loolu nag mbokk yi moom la ma Mamadou Koïta inspiré mani ni on peut pas vouloir une chose et son contraire nit mënta bëgg dara bëgg safaan ba développement la ñu bëgg dafa am nag lu mu laaj sacrifice sacrifice mooy jëf ju kawe joo xam ne ji ba nga koy def seentuwuloo ci sa njëriñu bopp yow yaa ngi séentu payuk suñu boroom walla aw woy wu jëm ëllëg ndax lan danga nga dindi ci ay nit jafe-jafe yoo xam ne dootuñu ko fàtte mooy jaayante yi nga naan dégg ca jamono yi apartheid walla racisme ci États-Unis ñaata junni nit a dee ci loolu ngir tey loolu fanqu ci réew mi réew yooya il faut que nit ki foo tollu ci sa dund war nga seet li nga weesu ak li nga dëgmal li nga weesu ak li nga dëgmal te loolu nga dëgmal li nga taxaw teg ci say tànk ñoo la ko mën a may ëllëg wala ñu xañ la ko kon faw nga def ay sacrifice sacrifice yi nag waxuma nga dem di jaay sa bakkan keneen ku ko mérité wul déedéet waxuma ngay jàmmaarloo koo xam ni kii moom nga dee ak nga dund la yemale déedéet da nga yemale dund ak dee yemale moom ci boppam rey ko ak moom mu dund may la jàmm loolu mooy àtte bi waaye boo yamalee dund ak dee moom dalay rey rek jàll faw ñun ñu accepter lenn tourner définitivement la page ci lépp Sénégal lépp la ñu wala bitter ñi léppi Sénégal lu jëm ci diine jëm ci koom-koom jëm ci euh, ndono jëm ci euh, sécurité lépp Sénégal justice bi lépp moo war a bitëriñiku ñu nekk ci Sénégal bu bees loolu nag faw fen yi jeex yi nga xam ni day gaar développement ñu fexe ba teqalikook ñoom ay idées préconçues ñu dindi ko fi dindi fi fanatisme fanatisme mooy jëfandikoo woo sa xel keneen moo la yor di jëfandikoo sa xel di la defloo la ko neex développement mi ngi commencé ci changement de mentalité mooy xel yi soppi ko mentalité yi nag mooy lan am na mentalité cogg cogg koo xam ni cogg rek lay dundee moo bari ci réew mi mentalité wor mentalité feñaak nanguwoo liggéey mentalité bëgg lu yomb mentalité par parloo mentalité ay nit di la teg loo xam ne lii jaaduwul nga naan yàlla baax na yàllaa ko fi teg yàllaa ko fal yàlla jeexul su ko yàlla jeexalee nangam nangam nangam réew moo xam ni mii dara doxul dara doxul ay nit taxaw ki ngeen ko léegi ngeen àgg ci di jëlante paaka ak i jaas yi di dóorante pour fal koo xam ne ki yow xam nga xel ne tekkiwul dara léegi ñu àgg ca ñooñu nan la leen do nit doomu aadama mën a faje nga jël sa bakkan di ko sacrifier nara sacrifier sa ëllëg moo dajeeg sa borom yóbbu fa bàkkaar ci lan fal koo xam ne kii yow bés bu tegee tànkam ci taatam ci fauteuil ba fàtte ne la looloo fi am loolu moo fi am réew moo xam ne mii dara doxul tëgg fecc woy jël xaalis di sànni ci frontière bi yéen a ciy teg seen bët réew moo xam ne mii dara doxul ngay dégg ay milliardaire yoo xam ni nag kenn xamul fu ñu jugee waxuma la ñi nga xam ne ñii ñoom dañ koy wut wutin bu daganul waaye danga nga ciy gis sax koo xam ni kii boo toppoon euh, mbir mi di ko topp ba ca yàgg danga xam ne lii bi mu koy am xam-xam mayu ko ko liggéey mayu ko ko mbokk yi kii nga xam ni moo fi nekk tey xam na mbir mi moom gis nga firawna ba mu nekkee ak euh, bani israila fastaxaffa fastaxaffa qawmahu fa ataauhu ñu daal di koy topp moom xam na nan la ñuy def ñoom pour toroxal doomu aadama moom xam na ko boo bëggee ñàkkal nit fayda danga koy xiifloo te loolu ci la nekk marloo ko mu topp ci yow di daw boo bëggee doyadal doomu aadama danga koy ñàkk jàngaloo ñàkk koo yar bàyyi ko ci boppam bàyyi ko ci boppam muy def ak wax lu ko neex loolu mooy li nekk nii nga xam ni réew mi xam nañ ne nit ñi ñoom ku leen teree fo ñu song la léegi fo rek lañ leen di jañtal organiser ay làmb ay ay lan daanaka yu tegaloo <laughs> liñ fi waxoon naan seen corona bi de néew ne moo arrêté woon làmb yooyu waa ji joxoon nañ ko mu signé ñaata contrat ci làmb ñu koy tudd moom di tudd ne moom ki jiite réew mi moo ko jox xaalis wala boog parteem ñoo ko jox xaalis loolu dégg ngeen ko fi loolu dégg ngeen ko fi mooy lan demal nga dof loo leen nañuy football nañuy fecc ka tëgg nañuy bëre ay ca bu ko defee ñu fàtte ñu ñu fàtte ñu loolu mi ngi ci te xam na nu mu koy doxale nit ñi danga leen di soppi ay xar ñu lay topp wala ay bëy soo yëngalee leket gi ñu topp si la loolu la ñu def ñoom boo xoolee fu ministre dugg nit ñi dañuy daw fu député digg ñun ñi dañuy daw riir fu fu président moom waxaalewu ko nit ñi tell tell tell di di rang di tàllal loxo lii moo nekk ci réew mi moo nekk ci réew mi ñoom xam nañu système bi ñuy jaar hôpital yi baaxul ñoom ca bitim réew la ñuy fajoo école yeeg université baaxul seeni doom ca bitim réew la ñuy jànge ji te lépp ñun ñoo leen jàpp ndalal lu tax ñu mën ko ñoom lépp cher nag ñoom ñi koo ci toppoon tey mu dugg ci benn select supermarché xoolal la muy jënd du naan ndox mi ñuy naan du lekk li ñuy lekk ñun heureusement xëy na sax ñu ci bare du ñu dem ci select yi seeni i mbindaan ak booy ñoo cay dem buñ fa boo fa demoon da ngay yéemu da yéemu gis ñoom dund ga ñuy dund naanuñu suñu ndox naan lekkuñu suñu diwlin na lekkuñu suñu ceeb lekkuñu ndawal sax xam xam nañu bañ cay lekk ñun ñu topp leen di daw ñun ñu topp leen di daw yoonam nekkul ci ay njëg yu yokk moo leen ko gën a xam fii ngeen déglu video mu daal ne nguur gi ñooy tege ay taxes yoo xam ni est-ce que nan lu mën na nekkee essence di jar nangam ko di jar moo ko wax ci gémmiñam tegal naa leen ko fi fan yi léegi weesu kon moom xam na li muy def mooy lan dee leen comme ay weñ yoonam nekku ci weñ yu ñu pompe malation bu ngeen di dee comme noonu safu ko intéressé wu ko ko defee mbokk yi nañu gàttal wax ji fii mën na am ci dellu siwaat incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.